que monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg dee ak tàngaay fii nii. waaw. Ba na nga def. metti na. xam loolu moo tax nag ma indi la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. verre bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment du mos a tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni. moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. voilà. verre bii nag moo la verre bii moom moo nekk sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndëm dafay tàng. te mhm. am nañ climatisation mais ça ne va ba tey doxul. muy noonu. léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. sëñ maa ngi taxaw ak soxna Binta Dione dëkk fan fii ci HLM Medina soxna Binta Dione lan moo la tax ñëw fii ci barabu sëñ Touba bii nga xam ne macha allah yaakaar naa Dakar fi nelaw jeex na fi ñëpp ñëw nañ fii luy set luy set waaye loo yëg ba bàyyi sa kër ñëw. am yëg-yëg bu mag rek ak mbégte kontaante ñëw ziar ci looloo tax hmm, ñu loolu. loolu boo ko dee leeral ñun danañ ko gaaw a dégg fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jaylani aw intama li ahmad at tijani loolu waxi sëñ Tuubaa la id kulluhum ala sawaabi wax na raddi anni sibtuhu tijaani alayhi ridwanu mubidil jaani nee na Cheikh Cheikh Ahmada Tijaani Abul Abbas daf koo gërëm comme ni nga xam ne la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam gërëmee kon boo ab tijaan taxawee ñëw teew fii ci Masaalikul Jinaan di leeral ak di wane mbégteem ci Serigne Touba loolu day dëggal waxi sëriñ bi Serigne bi dafa ñëw li tajdid lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu nadaafatuhu sunnatil baydaai kaashifatun ani zalaman wa taabal qalbu kal badani dinaa leera lépp setal lépp lépp lu fi yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi woon dinaa ko raxas ba mu set daru tilim ay xale xale yi say lan lañ. samay cousine lañ. samay cousine lañ yéen loolu dañoo kontaan rek. waaw man ci Masaalikul Jinaan bi parce que sëñ Touba moom mënu mënu waaw. munu woon a ñàkk am nii. Ah, fii nag la wax ci jeexee nag sëñ Touba mëntoon a bañ ñàkk am lu mel nii waaw loolu nag moom lépp yéen nag yéen ñi ma dajeel ñëpp yéen a ma ci gën a neex <laughs> macha maa ngi leen di ñaanal bu baax yàlla ngeen màgg te barkeel yàlla leen Serigne Touba defal tawfeex merci beaucoup jërëjëf. sëñ daa maa ngi taxaw ak euh, Serigne Fallou Samb Touba di kenn ci waa kër bi Ibra waaw tabarakallahu ñu fekk ko ci euh, barab bi moom it yaakaar naa ah, waaw sëñ Touba Cheikh Ibrahima moom day leen waaw sëñ Fallou bisimilah Tawfekh Production ñoom nga jàkkaarloo muy site boo xam ne dafay yëngu ci wàllu yaatal njàngaleem sëriñ bi ah, ci mbooleem xeetu événement yi nga xam ne dafay am ci yoon wi ak ci biir réew mi ak ci bitim réew. di sant yàlla rek di julli si yonent bi di waxte jërëjëfati si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuulullaahi borom tuuba te xam ne sëriñ Touba rek loolu mu ne wax ne ne aw ma ginnaaw. tànki kanam laa am mooy dëgg ndax kenn du maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mourideen ndax bu du moom a tey mën naa ne la Cheikh Bamba réer nu ñibbi kon Serigne Touba sant ko waaye jaaraamaal Cheikh Ibra Fall li war na kon li ñuy wax rek li li Serigne Touba li ko suñu borom fayee tey mi ngi nii ndax li mu waxoon rek irham jami xalmara yaa maalikul mulk yaa man jàll an xawa di irham jami xalwara yërëmal jaam ñi bu ëllëgee loo ma loo ma def baax waaye suñu borom dafa xamal ne si Ahmadou Bamba bu ma yëremee jaam ñi sawar a gént waaye képp koo nga xam ne bëgg na la toll ne sarran mooy fepp suus yaramam aram na sawara kon bëgg Serigne tubaa mooy sunu njëriñ bëgg Serigne Touba mooy sunu njëriñ kon di wax ne jërëjëf si Ahmadou Bamba Xaadimul Mustafa di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ku wér. production maa ngi taxaw ak soxna Aïda Ndiaye di tur tànk yaay Fall ah ma dajeeg moom fii ci ma Jinaan anas luy sa yëg-yëg lan dikk fii nii rek. Ah, xanaa xol bu fees rek ndax li yëpp liggéeyu sëñ Touba la ndax man dama ko bëgg sama biir xol. Ah, waaw. Ah, bëgg sëñ Touba rek moo la indi. waaye masaale gi yow noo ko gisee. xanaa rafet rek. te jekk waaw. waaw moom moom moom moom waa Dakar nag bi ñu leen defaralee nag macha allah lu rafet li nag après nag ñoom nuñ ciy taxawee nag ci positif bi nag yaay faal yeeg kafe ngoon yeeg yooyu. ñun xanaa dooli liggéey rek. ndax lépp luñ defoon moom dinañ ci yokk ba mu sës. waaw liggéeyal sëñ bi rek. macha allah kon daal nag sëñ Tuubaa nag moom ca kaw ca kanam rek xale yu ndaw ngay gis ah, seen seen yëg-yëg ak bu waxee yow muy mag sax da ngay da ngay da ngay da ngay dem ci beneen étape waaw loolu nag ah, sëñ Tuubaa la rek taba nufuusu man taaluqu biya dunya wa uxra daaka fadlu rabbiya nee na bakkan yi nga xam ne yëpp ci man lañ aju fexe naa fexe ba stress dootuñu ko amati loolu moom waxi sëñ Tuubaa moom du samay wax soxna si maa ngi jàkkaarloog yow ah yaay booy maa lay siyaare a ndax lii sagul islaam la sagu yi la sëñ Touba lañ koy sant di ko gërëm ndax lii mu ñu indil fii ci Dakar nee naa da tey dafa mel ni Touba la ñu jël indil ñu ko Dakar fii sant la tey jii lii dañ daan jógee Dakar di dem ba Touba di ziar tey ñu yombalal ñu ko indil ñu ko fii kon na dañuy sant bu wér wer di ñaan sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg ci wér kontaan nañu. jërëjëf Tawfekh Production mu ngi leen di nuyu di leen sant boo leen xoolee ci YouTube bi da ngeen ko gis incha allah dugg dégg nga jërëjëf. waaw maa ngi jàkkaarloog soxna Adjaratou Momy Bouteille waa Tawfekh Production ñoo lay tàllal seen micro di la laaj lan mooy sa yëg-yëg ci jumaa ji ah? xanaa xol bu sedd guyu rek. billaahi wallaahi taala bi may julli ñaar rakka léegi sama lépp màkkatul ma karam la ma jox man ma fa jógee daaw billaahi wallaahi dañuy ñaan yàlla suñu borom yàlla nañ fi julli ay ati ati ati ati at sëñ Muntaxa Basiru yàlla na fi yàgg te ànd ko wér yàlla nañu yàgg jiite ci yoonu lislaam képp ku fi taxaw rek yàlla na yàlla faj say aajo zahir ak baatin yàlla na fi jële ak wér ak wér le suñu xol seddu na guyu guyu guyu ba suñu xol dafa sedd ba mun ñoo wax sax billaahi wallaahi waaw waaw jërëjëf jërëjëf yaay booy jërëjëf jërëjëf sëñ sëñ Mourtalla waa Tawfekh Production nag ay gan lañu am waaw euh, tabarkalla macha allah soxna Khady soxna maam bi tey ñuy ay xale yoo xam ne macha allah tabarkalla ñoo ngi def seeni i kaala ah, def seeni i muuraay seen i yaay faal ñëw taxaw ah waaye yéen moom jumaa ji moom ana loolu la ñu ci wax nag. a ah, jumaa ji kontaan si torop torop torop mbégte muriti la muriti ndaw yeeg yu mag yi ñëpp a kontaan. Colobane kontaan na Dakar kontaan na. dëgg fan nga dëkk fan nga dëkk. man Touba laa dëkk mais fii laa nekk laay liggéeyee ah, waaw. waaye yow jumaa ji moom gannaaw bi ñu ko defaree ba mu rafet nii après nag yow sa diggante ak jumaa ji lan la. kontaan ci xanaa rek daanaka mën nañoo wax fii mooy suñu Touba bu ñu mënta am te jumaa ji nekk Touba bu ñëwee fii rek ñaan suñu soxla dana faj incha ah, yow soxna soxna eh, soxna Khady kaay kaay nii eh, soxna maa ngi jàkkaarloo soxna Khady yow lan ngay wax sa eh, luy sa mbégte. wax dëgg yàlla dañu kontaan torop ndax jumaa ji ko xëy suba ak moom te amu fi woon ñu jékki-jékki xëy suba gis ko duñ def lu kontaan suñu xol sedd na torop. jërëjëf Tawfekh Production moo ngi leen nuyu di leen gërëm kon nag baax waa waaw tala maa ngi jàkkaarloog jëwriñ euh, Badara Mbaye waaw di taalibe sëñ tubaa yaakaar naa duñ ko présenté kenn sëñ Badara yow moom dama lay jox nga wéyale maanaam yow noo gisee yëf yi. rek ni ma ko gisee mooy sant Serigne Touba bu wërëwër euh, di ñëw di présenté fii suñu waa daayira Miftahul Muna Wasul bu Touba wax dëgg di sant gërëm ñëpp nag boo xoolee wax dëgg tey da ngay am yëg-yëg ne murid yi am nañ pas-pas dëgg dëgg dëgg kon sëriñ Touba rek a wóor comme ni mu ko waxee ci ci xasidaam bi rek yaa malikal mulkiya man jalla an xawadin irham jami alwara iya diaradaha comme ñaan googu yaakaar naa boo ko gisee tey kullu murid tey jii boo ñëwee fii sëñ Badara sëñ Badara dooguma la est-ce que yaa ngi taxaw ci confirmation ne sëñ Touba lii xew nii day confirmer ne sëñ Touba lu mu am moom ñëpp koy bokk ci lu yaa ngi yëg loolu maa ngi am yëg-yëg bi maa ngi koy gis ci saayir maa ngi koy gis ci baatin parce que fii boo xoolee fii hmm. tey nga xam ne Serigne Touba amul morom yàlla ñu ko yàlla fayal Serigne Badara Serigne Touba wutul dara ngir boppam de pour ngir ñun la de ngir ñun la de ci lu wër li mu la mën a firndeel kay mooy ak Serigne Touba hmm. yàlla ñu ko yàlla fayal ñun ñëpp barki Cheikhul Khadim sant nañ la gërëm nañ la jërëjëf Serigne Touba Tawfekh Production jërëjëf Fati jërëjëf Serigne Touba jërëw lekk Mame Thiara Fall jaraama soxna Jaaratulaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jawrin jawrin jawrin